Oh, iya. Balla ini ngi si Gram. ba kaan borom kaan bi 2011. Gaston mu nih kan bi ban combat papa papa père Gaston. <laughs> ah Balla. yaa ngi fàttaliku. père Gaston mu yore kaan bi. 2011 bi combat Tyson kan la bi lan ngay wax lan la lay non kaan bi da koy indiwaat. da la. ah le ah. ah. <laughs> 7 tey ndogo bi noo gisee ndogo bi tey bi. Ah mm-hmm. toog bi nii rek. waxtaan mm-hmm. dafa am solo. Mm-hmm. kooku vraiment macha allah. macha allah père daal macha allah. Ah. yow ñu ngi lay jaajëfal. Ah. Hmm. gis nañ tamit bi bi Real dugalee troisième bi sa xol neexul de yow sax nga contre Real. dama <laughs> Barça la. dama ah. Barça la. damay bëgg ñi escanté. Hmm, ñi escanté waa Real. Hmm. mais est-ce que Real mën na jël Ligue des champions bi. Real. ah ah gars yi amul équipe de mais. mu ngi sox de en tout cas mu ngi sox. yaa ngi ñaan Messi ñëwaat. non Messi day dellu léegi. Hmm. contrat bi d' ah, accord équipe bi am na pare quoi. Hmm. Ah, Balla ñëwoon nga fi daaw de. dibi bi yaa bi. waaw gis sa xamee Gris Bordeaux. gis nga ñoo <laughs> ngi fekkee dibi bi quoi. Ah, dibi bi noonu la. ñoo ngi Père Gaston. Père Gaston. la Don nan nga def ba dajale fii Balla ak Sa Thiès tey. lii raar de. doom lañu. waaw seen kër lañu ñëw. seen kër lañu ñëw. tey dibi bi amul de yaa ngi fàttaliku dibi Gris Bordeaux beeg Balla Gaye. <laughs> tey koor la koor la koor la quoi d'accord merci.